bu ñëwee waxtu reer jox ko mu reer waye melni ni waaja na mu def rek am gan mu ñëw waxtu reer mu top diko waxtu lo di ko lo wa dëkk bi ba fàtte ko jox rër li wax ni xif du mbokk mu tëdd ba guddi gi sori lool biir bi di joy rek mu jog di wër waan bi ci kër yi ba gis waan wi rek ubi buntu bi mu duggé nak problème moy numuy def ba tal lampe bi far loxom laal ci ak boole rek mu ni xëra na na rek wa kër gi daw yow cey <laughs> sacc fekk waji ci digg waañ wi fi def muy xanaa tërëdi <laughs> waaw di rek ay bu fekkon topato nañ ko loolu du ko ci fekk kon gan dañ koy teral su ñëwee waye teranga bi ëpp ci teral gan nak mooy basaasatul wajhi mooy kanam gu leer dañu wax ni gan kenn du ko dalal ci château gan kenn du ko dalal ci salon gan kenn du ko dalal ci lix mais fi ñuy dalal gan mooy xol bu sell mooy xol bu sedd moo tax ca waxtaan wu njëkk wu ñu waxoon aljaaru zil xurba mooy mooy nit ki faw mu defar xolam toppatoo xol bi ba xol bi mucc ayib waaw dara ci kiñaan dara ci soxor waaw dara ci lëndëm lëndëm bañ ci nekk ñu ni soo defaree sa xol nag ba sa xol jag ku ne di nga mën a dëkk ak moom ci àddina ndax yàlla mën na la nattoo soxna soo xam ne fitna la ci yow yàlla wax na ko ci alxuraan lenn ci soxna yi lenn ci doom yi fitna lañu ci seen kaw mën nañu dëkk ci tooñ leen ak ci def loolu naqari yow baay bi te doo ci man dara waaye dangay ngay xajoo da yaatal sa xol xajoo leen te muñ ko te yàlla tax parce que muñ googu ak ak ak nattu boobu jaamu yàlla la ci yow